yonent bi sant samay waajur maa ngi sant Cheikh Seydou Abou Bakar radiyallahu taala anhu ak kilifa yi nga xam ne yëpp ñooy kilifa diine yi ci Sénégal en général mais en particulier à Thiès je je citerai sans être démenti ku ko par feu El Hadji Amadou Sakhar Ndiéguène nga xam ni ñaanam servir na ma bu baax a baax a baax a baax a baax doomam a ngi toog di aas bara njëgën di sama xarit def ma mag te mënoon na sax ndax bi mu yor sur le plan spirituel ak li mu incarné man bañ ne ko fekk di ma teral ba màkk 2005 dañ daje à la Mecque ci raw du yonent bi nu julli ba pare di génn mu sedd lool mu mal mu doxe ma gannaaw xëcc sama armal ma geestu ndekete mun moom il est rare ku mel noonu di nit di ko teral di ko won boppam am na ñoo xam sax bu la xamee bu dajeeg yow ci yenn milieu yi dañ laan nëbbut waaye moom bokk ci ñooñu mi ngi nii toog moo ubbi ci ñaan incha allah moo fas yéenee tëj ci ñaan ànd ak rakam teewal fi sëñ Muniru Njëgeen di xalifa alaaji Emalu Saxir Njëgeen ah, mu wuutu it baayam sëñ Abdou Aziz Ndiéguène xalifa tafsir Amadou Baro mi ñu tuddee kii man nag sama xol dafa fees waaye nag ki waral mbaboor ni ni ngi ni sama wet soq ka jëf waaye peppa wax wolof njaaye ko wax so soq moo wax ma ni soq bépp wax waaye waaye soq ko waral mooy kan mooy Ousmane mii nga xam ne dama koy bàyyee yàlla ak yonent bi ak ci maamam léegi cof na ko léegi maamam ju wax kin ko tudde Tafsir Ousmane Cissé mu xaddamu Alaaji Malick la waajuram bi ko jur moom mii Aline Cissé Tafsir mu xaddamu sëñ Babacar la ma daan fa dem di fa ànd ak Cheikh Tidiane mii xalifa bi ak sëñ Abdou Aziz Al Amin ndax ñoom chaque année bu nu gàmmoo ba pare ñoom dañuy gàmmu ci ndigal Alaaji malik mu nekk gàmmu cosaan goo xam ni li ci gën a fonk ki la bokk bañ nañ ko bu bala noo programme benn gàmmu ci année moom lañu jëkk a programme retenir ko sëñ Abdou Aziz toog naa ba yàgg mu naan jëlal ma fàttali gàmmu jinge de jëlal ma fàttali gàmm kooku nag moom en passant mënu ma ko fay Seigneur Abdou Aziz Al Amin, l'homme offrant parler, la générosité sans pareil égal comme doomam ji toog léegi nag bi nga xamee ni euh, préfet ngay wax ci turu gouverneur ak turu président de la république mën yëgal naa ko affaire bi en tant que chef de l'état président de tous les sénégalais. que moo ngi woon kër jëmm waaye li bis bi am am solo. gouverneur mënu fa teew adjoint gouverneur mënu fa teew man préfet mënu ma teew adjoint préfet mënu fa teew kon yaakaar naa ne ku ko nangul ku ñu nangul ngant loolu di nga ñu mën a comprendre ñu am ngant adjoint sous préfet bu Notto moom moo fa dem teewal état damay faral di wax ni naka dalee ci adjoint sous préfet ba ci gouverneur de région ay doomu bàyyi lañ rek ñoom ñëpp ku ci nekk président de la république moo la fa teg nga am dayoo ba wala nga am prérogative yónnati bi ku ci nekk forme yi ñu leen di fa euh, nommé mooy conseil de ministre lañ leen di falee donc ku ci teew rek mën ngaa teewal ñëpp yàlla dogal na démb jusqu'à quatre heures du matin man j'étais sur le terrain am na journaliste yoo xam daje nañu dafay metti yenn saa yi ba doo mën a taxaw nga yeew midi ñu sant la liggéey boo xam ne maa ngi toog lii sama kilifa di may woo donc moo tax vraiment ma bëggoon jéggalu doyen benn Cheikh yaakaar naa digganteem ak administration diggante bu yàgg la kooku jarul sax mi ci jéem a wut fitna fit firnde di moins ndax diggante boobu macha allah ba léegi mooy law lu xew ci gouvernance je crois que bu ñëwee rek dañuy jàpp ni moom mooy représentant presse bi yëpp <clears throat> moom ak confrères yi comme ni ñu ko waxee sànq confrères nag ay doom ay jarbaat ay sët kon nag loolu yàlla na yàgg looloo tax mënu ma woon bañ a ñëw bi ma koy gouverneur mu ne ma foo jaar jëlal sa tànk nga dem dëgg dem toog. mais instant bi yoo toog nii am na kilifa yoo xam ni ñoo ngi ma sant loo xam mënatumaa toog kon nag vraiment moo tax may jéggulu di sànni kàddu yooyu mais mu am également beneen élément bu ci bokk doyen benn cheikh doomam il est des nôtres c'est l'adjoint au de Saint-Louis di suma rek di suma xarit Babacar Ba ndegam moom moo mënta bañ a ñëw ak sama ak ñun ñi donc vraiment loolu daal laa ci bëggoon sànni euh, remercier également l'ensemble de la presse locale bi nga xam ni ñoom ñoo organiser lii ci xalaat bu rafet bu sunu mag sunu xarit Ousmane Cissé parce que nit lii rek la am ànd ak sa nawle nga dem ba jàpp ni lii war nga ko defal nga sonn ci yëkkati sa coono sa alal sa lépp def ko ci. je crois que loolu bu ñu koy def surtout à cet âge dañ leen sant di leen gërëm vraiment disponibilité administration a accompagner ou à se par la presse parce que ñoom ñoo ñu jàppale. parce que administration moom moo am prérogative bu nekk au service des populations keneen ku ci yëngatu rek da nga koy jàppale sa bu jàppale bi euh, neexul woon également day metti jàppale bi nag li muy commencé mooy en matière d' information moom d'une collaboration saine boo xam ni moo ngi dox diggante journaliste yi ak léegi démb bi may génn ci guddi dama dajeek benn journaliste du ma cité turam ci sama oto la ñu ànd di dem muy def liggéeyam may def sama liggéey ba une heure deux heures du matin mu wàcc ma continuer presque ba kon nag loolu moo ñu jàpp vraiment doyen Ben Cheikh moo tax ma ñëw ci suma tur personel en tant que doom en tant que jarbaat mais également ñëw ci turu gouverneur de région sa xarit Amadou Sy sànq la ma wax ni mënoo bañ a dem mais wax fa dëgg yàlla bi may jóg di ñëw dama sangu sël mu jël saabu def lépp sa liggéey may xaar ci bureau mais loolu du man kese ñii fi toog ñëpp ku nekk sacrifice la waaye am na ñoo xam ni ku mel ni suma xarit jatara bu ko neexee mu toog parce que amul ñun nag dañoo am patron yu ñuy takk saret di làbbali mooy tax yenn saa yi mu jafe moom mooy chef boppam kon nag boo toogee Ahmed Mbaye toog au nom de la mairie ñi ñi fi toog euh, suma grand Cheikh Fall maa ngi koy tooñ naan ko déserteur parce que moom toujours dama naan ko yow gouvernance ngay liggéeyee kon nag jàpp naa ne administration ñëw na donc tànk yi daal vraiment tànku féddali kóllëre la au nom de tout l'admi ci Thiès yëpp nga xam ni ñoo nekk ci association de la presse locale jiital ci comité de pilotage bi nga xam ni ñoom ñoo jëmmal lii bokk ci bay Samb doyen Cheikh Fall Sidi Dieng bu Walf ki nga xamante ni itam mooy Mouhamadou sañ nekk chef de bureau bu Soleil fii ci diwaanu Thiès du ma fàtte itam sama confrère yi fi nekk yëpp Mbaye Ba Janon photographe Sidi wax naa ko léegi Mariam Koli Ndeye Fatou Niang euh, Oumili Khadiyoum Frédéric Diallo euh, Babacar Ndaw Sud FM euh, Aminata Dieye Fatima Elisabeth Ndion bu rajo Dunia di ci fàttalikuwaale itam caméraman yi nga xam ni ñu ngi fi bu TFM bu 2 naka noonu Gustave Emmanuel Faye bu 2S ndax ci seen tur laay wax Cheikh Anta Diop RFM ramatulaay saar dem na ndakaar nekk fu waay Samba Ndiaye remplacé ko mi ngi fii moom itam euh, naka noonu ñi nga xam ni ñoo nekk Corkat FM ñi nekk Best FM ñi nga xam ni ñoo nekk Walfadjri de manière globale DJ Mbaye moom macha allah waaye daal jàpp leen ni taskatu xabaar yëpp ba ci Ndata Diop mi nga xam ni. nekkoon na fii correspondant RFM pour wan leen bis bi ni mu màggee ci taskatu xabaar yi dafa bàyyi programme am yëpp ñëw fii ci diwaanu Thiès. doyen Aliou amaat bu Soleil moom itam ñoo ngi koy ziar di ko sant di ko gërëm di ko nuyu xam naa ni su fekkoon ni dinaa mën a lim ñëpp dinaa ko def ndax bisu taskatu xabaar yi la waaye daal ñi nga xamante ni de mémoire ñëw nañu ci sama xel ku ci mel ni itam doyen Babacar Diop bu agence presse sénégalaise moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm teew na fi naka noonu doyen Babacar Ndiaye mi jël kàddu léegi Thierno Sow bi nga xam ni mu ngi Gindiku FM pour wax ni association de la presse locale yemul rek ci ñi nekk fii ci diwaanu Thiès te ngeen xam leen waaye dans tout le département lu fi rajo rek muy rajo commercial ba ci rajo yi nga xamante ni mën nañoo wax ni ay rajo communautaire lañu ñu ngi bootu ci li nga xamante ni mooy association de la presse locale. donc ñooñu mënuma woon a wax ci seen tur te duma ci tudd ñi nga xam ni teewlu naa leen ci sama xel Cheikh kamara itam nekk correspondant wu témoin fii ci diwaanu Thiès. képp koo xam ne rek fàtte naa ko jàpp leen ni nit la te nit du mat waaye daal ñu ngi sant ñu ngi gërëm taskatu xabaar yi ci Thiès di gërëm taskatu xabaar yi ci Sénégal ndax tey bisu sunu confrère benn Cheikh Ba mais itam sunu maam doyen benn Cheikh Ba sunu confrère parce que dañuy ànd ak moom ba léegi ci terrain bi di def ay reportage comme ni ma fi ji ñi ma fi jiitu ci podium bi ni ñu ko waxee yan saa yi ñuy wax di ko waxtaan ak moom ba fàtte ni ay la yéwén sunu maam la dañuy wax rek sunu confrère di tooñante ci reportage yi comme si Ben Cheikh était koo xam ni sunu morom la alors que sunu maam la te day bañ sax ku koy wax maam wala nga koy wax dara lu jëm ci lu koy fàttali ni moom mii mag la du xale donc kon doyen Ben Cheikh ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay boobu ñu ngi nuyu itam ñi nga xam ni ñëpp sargal kii nga xamante ni moom mooy doyen benn Cheikh Ba ñu di ci waxtaan di ci waxtaan ba directeur des mines itam fekk na fa mu nekk xelam ba ca mu jël initiative wax ko ñi nga xam ne ñoom laa fi lim léegi muy comité de pilotage ñoom itam ñu ñëw partagé ko ak ñun mu nekk wokkatu bu daje ak gersu ñu ne kon sunu mag ñi jiitu nañ ñu pour teralal ñu sunu maam ji dañu ciy teg sunu loxo rek ànd ak ñoom ci lu nu mel. ci loolu itam ma fàttali ci ñaar yoo xam ni jël naa ko interview ci xew-xew bi pour teg ko ci rajo waaye mu nettali ñu loo xamante ni presque mat na une heure de ma jàpp ci ñaar. benn bi ñun ñoo ko moom ñun journaliste bi ci des c'est pour expliquer un peu li nga xamante ni doyen Ben Cheikh am na ko muy traversé l'histoire de la presse sénégalaise avant indépendance indépendance jusqu'à nos jours dëgg la professionnalisme am na ci jom ci liggéey bi am na ci fullaak fayda am na ci waaye ñaanu kilifa gu baax am na ci ndax dañuy waxtaan souvent mu ñuy fàttali ne sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu moom moo ko ñaanal moo tax tey jii kon taxawaay yi muy am ci wàllu presse du ñu bett wax na ko ci rajo bi ne sëriñ Babacar Sy moo ko ñaanal pour mu nekk taskatu xabaar écrivain public lañ doon waxtaan yooyu waaye mooy taskatu xabaar moo tax boobu ba léegi il a traversé toute l'histoire de la presse sénégalaise ñi fi jiitu wax nañ ko loolu jàpp naa ko ci waxtaanam leneen li nga xam ne jàpp naa ko ci waxtaanam te ñun journalistes yi ñoo ko moom mooy dafa couvrir ba muy nekk ci digg ndëndam benn manifestation boo xamante ni parti au pouvoir ñoo ko fi defoon le tout puissant Jean Collin woo ko ba mu ñëw mu ne ko balaa ngaa publier papier bi jox ma ko ma liir ko doyen benn Cheikh tontu ko ne ko mukk duma la ko jox nga liir ko parce que doo sama patron te ñun ci suñu liggéey loolu daf cee am solo torop torop torop suñu indépendance loolu bokk na ci li koy firndeel pour que ñu mën a jouer suñu rôle ni mu waree en tant que des journalistes donc loolu ñun journalistes yi nga xamante ni ñoo nekk ci terrain bi war nañ ko cee jàng nee na mu ne ma Jean Collin ne ko dama bëgg liir mbir mi balaa moo génn mu ne ko mukk doo ko lire ndax doo sama patron ba mu ko bindee def professionnalisme bi ci war a def ba publier ko ci la ko Jean Collin doog a lire au même moment que le public donc ñun journalistes yi nga xamante ni ñoo topp ci ay tànkam voilà une très grande leçon à retenir ça c'est une grande leçon de professionnalisme doyen Ben Cheikh Yàlla guddal fanam dafal ko wér gu yaram sutura ak jàmm di nuyu bépp kilifa boo xam ni yaa ngi fi teew te teewaay bi benn cheikh waral ko di nuyu suma xarit su suma wóllëree ma am di jàmm Assane Seck bi nga xam ni moom mooy directeur u Sonatel fii ci région de Thiès suma diggante ak su ma wóllëree sëriñ Samba Ndiaye mi toog nga xam ni sunu xamee yàgg na mu féddali ko ba ma ko woowee rek wax ni doyen benn cheikh lañ bëgg teral lépp loo xam ne ci wàllu liggéey la mu arrêté ko ñëw teewe ko ci biir nuyoo bi tamit maa ngi nuyu suma xarit Ousmane njaay mi toog moom mi nga xam ni tamit euh, yaakaar naa ni ku ko dis dis ma sama digganteeg moom defe naa ni dara doxu ci di nuyu euh, doyen Mor Ñaam yi toog moom yi nga xam ni tamit euh, kilifa la waa cees xam nan ko Sénégal xam nañ ko te nitu jàmm la di dox jàmm di boole di jubale te nekk na ñi nga xam ni fii ci cees lii nga xam ni ñoo koy defal doyen benn Cheikh. mérité na ko moom it pour nu tafal ko ko fii ci Thiès doyen Michael mbay moom defe naa ni ba ma nekkee chef de service des mines fii Thiès sunu soppe sunu waajur nit ku baax kenn du ni mag dafa yaru waaye mag mu yaru ku xam liggéeyam administrateur ba mu nekkee sous préfet nee na ma Fandène xaw ma Baba nooto ba ni mu nekkee gouverneur Thiès ba nekk conseil régional Idrissa Camara nit ku yaru man yaakaar naa ni ci wàllu administration su fekkee am naa jàng boo xam ne ci wàllu yore administration nekk Thiès chef de service pendant cinq ans mu jàppale ma ci wàllu liggéey di may xelal def ma doomam xamal ma ni ma terrain bi ma njëkk am Thiès moo ko yëkkati jox ma ko pour ma am foo xam mën naa fane ci liggéey boobu ma ciy liggéey di ci nekk mu ànd ceeg doyen Michael sa kamara amul woon lenn baa fenn fu muy dem lu dul sama oto rek la wóolu te loolu xam moo tax waaye mënoon na maa def ne moom mooy gouverneur man chef de service la su ma la waxee da ngay def te loolu lépp ci Michael mi la jaar muy dox ci diggante bi ak njabootam kon di koy ñaanal yàlla fa mu nekk mu defal ko fa sutura ak jàmm mais yow Mikaël yàlla may la fan yu gudd ak wér ba lépp li nga xam ne yaa ngi koy dox jàmm fii ci dëkk bi mu sotti du ma mën a lim ñëpp waaye maa ngi di sama xarit chauffeur Dieye policier moom ci administration lan xamee waaye sunu mbokku ngumba géwul la di nuyu ñëpp nag di kontaan ci ñëpp seen teewaay sànq wax nga ko jotaay bi man da ngeen maa wax rek ma wax mais newoon naa leen warumaa wax parce que affaire u journaliste la affaire u presse la ba ko waxtaanee doyen benn Cheikh toog ma ni ko doyen benn moi ma ni ko yow day ca dëgg-dëgg. exemple nga modèle nga wane nga melokaan boo xam ne ci wàllu journaliste ci wàllu diine ci wàllu àdduna ak ci wàllu nit pur ba ku nekk fii ci Thiès war naa mën a taxaw nga nekk exemple pour ku nekk di xool ci yow di jàng ci yow ci loolu ma ne ko léegi na ñu jéem a fexe nu jéem a def sax benn journée boo xam ne dina la taxaw waa Thiès xam ne yow yaay kan xam fan nga leen féete Sénégal ndaw yi jàng ci yow ndax jamono ju nekk nii dafa nekk jamono joo xam ni dafa am ay melokaan baa ay jikko yoo xam dafa tumuranke te melokaan yooyu te jikko yooyu tumuranke dañ koy dis ci yow te xam nga ni mënan kaa jariñoo ci yow doyen benn Cheikh man nekk naa chef de service waaye nekk naa faneen mais dis naa samay kilifa nan ko wege benn bis fii ci lam-lam dem nanu di xool di visiter phosphatu lam-lam yi ma ànd ak ministre d'État Ablaye Balde mais li ma gën a jaaxal ci visite bi mooy moom nam téyee benn cheikh ba jël benn cheikh sax boolewaat ka ak man Ousmane ni ma boole naa la benn cheikh te amul benn bunt amul benn kilifa ak loo mënti doon muy ci kilifa diine muy ci kilifay aada muy ci wàllu nguur te benn cheikh so dafay laaj rendez-vous loolu lu ko may nim mel la professionnalisme la waaye tamit dafa am jikkoo yoo xam da kaa jikkoo ma bëggoon nag nun waa Thiès ak nun waa ndaw yi ñu jéem a fexe danañ ci jànge loolu lu am solo la xam nga imam lu am na kàddu yu bari yoo xam ne danoo am sant bu la nee sedd nga ni guy bu la nee tàng nga ni jër waaye bu la nee baax moom doo ci teg dara mbaax moom leneen teguwu ci benn cheikh mii dafa baax te nit ku baax nag bu dee da nekk ci yoon nit ku ne muy ngi journaliste muy jaaykat muy sama mbokki comédien yee toog muy keneen ak keneen képp ku nekk ci yoon ñaari façon moo am bu dee da ngaa bëgg a teel a egg demal yow dong waaye su fekkee da ngaa bëgg a teel a egg egg ci jàmm da ngay ànd ak mbooloo sant sa mbokk yi nga xam ne tey teewe nañ lii te xam ne bis bii bis bu rëy la ci nun bis bu tuutiwul bis la boo xam ni lu ñuy fàttaliku la te noo bëggoon képp koo xam ne nag am na melokaan yoo xam ne mel na nii loolaan ñu wax journaliste yi may nan koy jéem a yaatal ndax lu baax nan koy saxal muy dund nu jëm kaa yaatal ndax am na ñoo xam ne noo ci jotaay bi am na ñoo xam ne nekkuñu ci jotaay bi sànq yéen a ngi lim ay journalistes yoo xam xam naa leen noonu ay Souleymane Diop ay biraan ñi ngi yi fi nekkoon ak ñeneen ak ñeneen mais ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne professionnalisme la néew na lool ci wàllu journalisme fii ci Thiès ngay liir presse ngay liir article ngay seetaan tele ngay déglu rajo nga dégg ci lenn loo xam ne lu ñaaw la baa lu defuwul la baa lu nekkul la baa lu jarta wax nga lire nun la journaliste ba ca cees moo ko bind baa moo ko wax baa moo ko génne parce que nuru mooy ñi nga xam ne dañoo bokk jikko àndandoo di liggéey noo nekkandoo fii en tant que groupe de presse te damaa bëggoon vraiment ci loolu mbay ak équipe bi nga àndal yëpp maa ngi leen di remercier di remercier doyen Cheikh ndax doyen Cheikh it moom au delà seen comité bi ku ñu bëri ràññee la ci rajo ak ci wàllu presse di koy remercier moom it nit ku baax la di dox lu baax di seet lu xam ne lu baax la ci diggante doomu aadama ak doomu aadama di koy dox ginnaaw li nga xam ne ma ngi koy liggéey ci wàllu rajo ma ngi dox yeneen yoo xam ne di jàppale ay communauté barki démb rek seen paase rek woo na ma di doxal ay doomu aadama yoo xam ni ak liggéeyam wuute nañ mais loolu ci mbaaxam la. kon maa leen di gërëm di leen di sant li ngeen ma bindaloon ci discours ci français mun ma kaa wax ci français ndax dama yaakaar ni lii ëpp ci teewaay bi kàllaamay wolof lan wax waaye doyen benn Cheikh kër gi def naa dinaa la ko jox. wax ci wolof nga enregistré ko sa sa sa sa sa dictaphone bi waaye li nga xam ni laa bëggoon a wax mu ngi nii ci këyit gi dama doon moom laa wolofal. wax na jërëjëf.